చూడా maa ngi tudd Doudou Kassé Diatta. Doudou Kassé Diatta yow lan nga si UDP. Ehm, man maay campaign manager Bakau constituency veteran politician la ba pare maa ngi eh, campaign and organizing committee xew-xew boo gis ci UDP advance team and campaign and organizing committee moko dede man ci laa bokk kuy doxal parti bi maay dundalo parti bi ci yëngu-yëngu bu nekk maa ngay dundal parti bi waaw dégg neen ah, ne jamono ji nga ne Barrow yow yaa koy wàccee maanaam président di Gambie dama ko wàccee man toog naa baro ma ne ko ñu la ak ñu la wóor yëpp dañoo undermine sa leadership te ñoom bëgguñ laal ko nit ki eh, nit ku nekk am loo mun eh, Barrow dafa fàtte woon démb bi mu tàngoon non musuta ñeme musuta def fii loo xam ne nit dinay wax ne Barrow téye nañ ko fii ñun lañ daan téye ñu ñoo daan wax bi mu metti woon Demba booba